la xewoon ca guddi ga mooy ci la wàccee téere bi ndax léegi wàccee gi ñu wàccee woon téere bi chaque at day ñëwaat wala guddi ga moom mooy ñëwaat yàlla li mu xam la mooy ci guddi googu la ko wàcce guddi googu nag ak njëriñ lu mu mën a am yàlla ñun waxuñu way gëm yi na leen yéen guddi googu fexe leen ba xam ko di ca def nangam ak nangam loolu amu ca ndax soo demee ba tey ñuy surat 44 ñuy suratu duxaan soo fa demee yàlla waxaat na loolu ne inna anzalnahu fi laylatin mubaraka di wane ne téere bi wàccee nañ ko ci guddi gu ñu barkeel loolu mii leen soo demee tamit ba tey ci suratu baxara yàlla di wax ci weer wi nga xam ne ci la wàcc muy suratu baxara muy surat de ay 185 yàlla wax na shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhuda wal furqaan faman shahida minkum shahra falyasumhu ba fa aaya ba yem yàlla ñëwaat di ñu xamal ne ci weeru ramadaan ci weeru woowu ci la wàccee li ñuy wax alquran kon guddi léegi loolu mooy wane na sax ci loolu la yàlla di jàngale ne guddi gee nga xam ne da koo barkeel muy guddi gi ñuy wax leetu xadri ci biir weeru koor ca la newoon mooy guddi ga nga xam ne ca la wàccee alquran ca bopp yàlla loolu la ci jàngale santaane wu ci benn xew-xew santaane wu ci benn jëf santaane wu ci lenn su fekkee ne gis na fenn fu ci yàlla santaane dara na ko indi wane ko te loolu amul